والقلم وما يسترون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 بنعمة ربك بمجنون وجنة لسالك مريد وجنة من équipe technique yi aju ci kuréel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xaalif général des Mourides samp ngir wallu askan wi loolu ci mbënn mi ñu ngi wéel seenub liggéey ci ay gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba ñu ànd ko ak ay kuréel ànd ko ak état du Sénégal ñu ngi amal liggéey bu mucc ayib. di tàmbalee jàkkee sëñ Abdou Khadir léegi jaar fi nga xam ne mooy tëli gere bi léegi continuer ñuy sotti fa nga xam ne mooy en face kër sëñ Mamorum sëñ Mourla fexe nañ ba wut ay tiwo yoo xam ne dafa manqué woon jóge Dakar toll na ci dix millions trois cent et quelque. léegi nag manquoon nañ ko ba ndox mi di wàcc mais taw bii bi daa rempliraat lépp tiwo bi ñu bi ñu monté ni tiwo deux cent la léegi nag pour nga pour nga pour nga gas ko ci suuf il faut li ñu capitaine bi waxoon dane il faut ñu jël tiwo deux cent cinquante parce que tiwo 200 mënoo ci def tiwo 200 pour mu dem tiwo 250 ngay jël ñu roof ko ci loolu lañ doon gas ni ngeen ngeen gis ñu tàmbali léegi taal nañ machine bi machine u efface la machine efface lañ taal machine bi doole ji mën naa ni mën naa ni deux heures de fii mën na jeex maanaam juróom benn téeméeri kër la la ñuy def yoo xam ne dafay génn ndox mi yenn tëli yi la jeex mais jeexagul ci biir kër yi waaw ba léegi jeexagul ci biir kër yi kon lépp lu ñu mën a yokk ci pompe yi génne biir kër yi ñu gaaw ko yokk parce que loolu tam des na ñu yokk ko bu ko defee yokk effectif bi teyit ñu dimbali ñu wax ak borom oto yi ndax fii branche le woon ko yàq nañ fi trois tiwo oto yi nga xam dañuy jógee Gédé di jaar nii ak yeneen oto toj nañ ci trois tiwo loolu bokk na ci li lu ñu taree suñu liggéey te buñ ko yàqee population bi dañuy wax rek ñëw wax na ko ni ñu yàq nañ ko yàq ko léegi diggante ba bala ñu ko def dañu am 4 heures pour ñu defar ko ndax liggéey bu métti la moom daal nañ mel na xel koom lañ nekk parce que ku la ni léegi la ñuy pare natt ko ci une semaine wala mu natt ko ci dégg la comme 15 jours mu natt ko ci weer da lay nax liggéey boobu nag ginnaaw bi ñu ko tënkee ngir jumtukaay yu mucc yi nga xam ne ni ñenn ñi sax dañoo daal fare ci yenn kër yi ngir génne ndox mi ci biti. boo xoolee ci suba ak léegi yaakaar naa du am naa six kër yoo xamante ni yëpp génne nañu ndox mi ba lépp jeex na fii mu nekk septième bi lépp jeex na parce que saa bu ñu xëyee cinq machines la ñuy yor machine yooyu bu ñu leen jàppee ba nga xam ne nii gasoil bi gasoil bi du manqué dara du manqué. démb euh, dafa am foo xamante ne nii foofu dañ faa njëkkoon muy fale ci biir euh, kër sëñ Sidil Mokhtar foofu dañ faa njëkkee woon après bu ñu jógee foofu ñu soog dem daa ñu soog a dugg biir daa daaru minam sëñ Sidil Moxtaar foofu am nañ fa lu war a mot ay six kër fële ñu fii ñu am fi ay sept kër loolu boo xoolee moom moom jippi bañ jógee ak léegi ci lañu ñu nekk parce que du rek équipe bi nga xam ne ni parce que équipe bi dafa am yeneen équipe yi ñu bu àndaloon mais dañoo dem ba liggéey bi ñu soog a ber man ma soog ñu soog a man mi ñu soog maa ber équipe ma soog a ak samay élément ñu soog a nekk ci kaw terrain bi mais affaire bi moom vraiment di nga dem foo xam ne kër yoo xam ne wax dëgg yàlla sa yaram day daw lool day metti lool yenn ci mbokki taalibe yooyu nga xam ne nii ñu ngi dëkk ci dëkk bu tedd bi di Touba te amoon ay jafe-jafe ci ndox mi gannaaw ay fan ñu doon dund lu metti biral leen seenu cant ci wàllu gi nga xam ne nii commission technique bi wàllu na leen ko man fi mu ne sama bagage yëpp mi ngi nii ci biir mais dafa yàqu woon kër gee itam feesoon na dell waaye yéen ñi nga xamante ne ay ndaw ngeen ñu yebal leen ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci turu sëñ Muntaxa ndax niñ doon dundee ndox mi metti na waaye bi ngeen ñëwee bi ngeen dugg see sant nañ suñ borom bu baax di sant sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo leen fi yebal mu nekk ab liggéey boo xam ne nii ci fàttali mu ngi daal di bàyyeekoo ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke mu taxawal ak kuréel fasantikoo ci commune bu Touba xisbu tarxiya ak tubaa ca kanam ñu boole seeni xel seeni xalaat seeni doole ak seeni am-am ànd ko ak mboolem julliti ak taalibe yi ngir nag ñii nga xam ne suñ borom dogal na ñu daal di loru ci mbënn mi ñu daal di leen tàggante ni ñu ko nemmeekoo nag ci technique bi noonu lu amee ci mboolem commission yi nga xam ne nii saa su nekk ñu ngi joxante dox daje fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ji ngir nag nos liggéey bi ba ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëgge ñu amee ko noonu. مالك مريده وجنة على